Omar Youm euh, nekkoon na ministre forces armées ci nguuru président Macky ba léegi nag mi ngi APR waaye démb moo nekkoon ganu RTS kon rupture ba léegi mu ngi wëy di am wax na ko nag ay wax ba d'accord na ni lijjanti càccum alal gi nga xam ni daal am na ñuñ ko jiiñ ñu daal di leen lijjanti d'accord na ci waaye nag bu règlement de compte am ñu déglu Youm te dellusiwaat. c'est que ñun bi ñu ñëwee li ñu njëkk a créé Macky Sall. oui 2013 def na OFNAC. Mhm. renforcer. les pouvoirs de l'IGE mhm. renforcer les pouvoirs de la cour des comptes réformer ko <laughs> ok bëgg na lu leer ñun bëgg nañu lu leer mhm. li ñu def ci gouvernance mhm. am na lu baax lu baree baree bare am na peut-être lu bon lu ñu xam ak lu ñu xamul man li ma gëm mooy bu ñu la joxee nga yor sa yorin waroo bañ ñu koy saytu di ko génne xam nga lan laay bañ mu am règlement de compte maanaam mu am benn manipulation de la justice parce que rapport yi cour des comptes mais yàgg na génn. Mhm. génn na avant. Mhm. dañ ko publier. Mhm. qu'est-ce que les gens attendent pour pour pour entendre ñi nga xam ne peut-être moom la ñu war a entendre. mais dañuy xaar sélectionner ay juges peut-être. jox leen benn feuille de route. yow loolu nga yaakaar mais mais c'est évidence on est parce que quand la justice politique moom justice politique ni muy doxee ñëpp xam nañ ko. ñu def fii yow ba justice politique dama ne justice ma ne non c'est-à-dire que. su doon loolu dañ koy def. Mhm. depuis deux ans laa la mhm. wax Cour des comptes moi je me rappelle peut-être c'est en ou deux mille seen rapport. Mhm. mais lu ñuy xaar. loolu koy njiitu réew Macky Sall lañ ko waroon wax. lan la doon xaar loolu loolu loolu dem na bu yàgg. maintenant il faut donner les dossiers au au juge d'instruction. ñu war xool. xool ko. de manière euh, vraiment objective. te xam ne man li may xam ci rapport boobu Cour des comptes parce que boobu moom xam naa ko lire naa ko dañ ko publier c'est nañ ci wax. Sénégal dafa jëlan mille milliards mhm. pour programme de résilience économique et sociale ci Covid bi mhm. mille milliards tey booy xool rapport Cour des comptes ci li ñuy supposé ne am na peut-être des choses à clarifier mhm. par une information judiciaire ça tourne autour de six milliards déjà tu vois entre mille et six c'est presque euh, voilà même si c'est il faut wala mi ngi noonu démb lañ doon junj lu ñu mel Assane ba nga naan euh, gaañi daal nañu defee ki nii defee ko nii léegi nag ñoom ñi ci seen biir far léegi d'accord nañu kon comme d'accord nañu rek kon ak labaj ak caay-caay kon gëm nañu ni léegi am na ndax mm. Aliou Sall wax naa la dem la mu waxoon que ni am nañu delloo ci suuf mm. waaye nee na daal règlement de kon bëggul mu am ci mm. waaw waa am na solo bu yum ñu ngi koy nuyu bu baax xaj naa ni yum moom wax dëgg yàlla man nii laa laa ko gis ci télé bi mais nit ko sérieux la nit ku sérieux la waaw yum ku sérieux la. ku sérieux la waaw ku sérieux la si doxalinam. yow nii ren ko gisee ci télé bi ni ku sérieux la. Hmm? waaw dama ko xool. waaw ah, d'accord naa ne ku la. d'accord si li ma gis si moom. d'accord waaw émission bi mu def it wax dëgg yàlla am na solo te wax na si xam-xam. Hmm. li mu wax lépp xam-xam la. Euh, te it mun mënut ñàkk mais li muy bañ ñu politiser ko wala wala wala li tax ñu koy politiser nag mooy na jàpp bi daa yeex dañoo war a gaaw jàpp. waaye gars yi dinañ leen jàppale mënuñu leen raw gars yi nañ leen def ne nañ leen def ne mais buñ nee cellaleeg bàyyi yoon wax mhm. kuñ si jàpp ñoom duñ si am problème waaw ñoom waaw duñ si am benn problème moom mii sax bu ñu ko woola woon du si am problème mais buñ déggee ñu naan yum dañ ko war a woolu wala diw dañ ko war a woolu dañu xam ne problème yi ngi am mhm. politique ngi am mais nag ñi nga xam ne seen yoon nekku si muy ku demee ne man ak keneen ñu naan nañ jàpp gaay ak nañ leen jàpp ak ñun ñëpp ñoom ñëpp la ñuy jàpp danañ leen audit danañ leen def nii loolu mooy indi politique am ci mais bu ñëpp ni woon tekk bàyyi leen si yoon comme ni ko waxee nii bu yoon waxee kenn du wax dinañ xam ne kan yoon mooy def liggéeyam mm. ndax ñi biñ ñëwee tàmbali doxalin wi Sénégal dañoo d'accord a gun ni yoon rek moo fi am si acte yi nga xamante ni mi ngi am donte des na tuuti si côté chroniqueur yi si côté chroniqueur yi yoon des na foofa tuuti rek lu ci desee hmm? lu ci desee non yoon dafa war a concentré wu si chroniqueur yi bu bàyyi Assane Mesere di wax mu xool ko bu baay Assane Mesere saaga ab jàmbur wala mu saaga ab politicien ñu woolu bàyyi Assane ni ko kii loo seq moom ba koy saaga chroniqueur daa am koy ñuy saaga li ñuy def kay ñooy raw saaga di lu dëmm sax jiiñ ay nit ah oui waaw ci réew mi si réew mi réewum Sénégal ñu ni dëmm la waaw lu non ma ni ñu koy waxee lu ñaaw lu ne dañ koy jiiñ ay nit te ñooña séquñoo ñoom dara dañoo am xalaat ci réew mi di ko wax ñoom chroniqueur yi ñuy toog di leen xas ku def sa texte sax bind sa xalaat si réew mi ñoom chroniqueur yi ñu teg ko. xam nga loolu noo jógee ci lijjanti compte yaa ma ko dugal de damaa de damaa teg sama benn tànk. non non nag yow da ngaa lokk affaire chroniqueur yi bëgg koo yàbbi wala. non non damaa teg sama benn tànk. nga puus ma non la puus ma demal la <laughs> ndax na ma ni ma hmm. hmm. eh, ma ci dara yi nga nekkoon wax ba àgg foofa nga naan yim loo ci wax. yéen lim lim wax dama see ànd. Hmm. Hmm, maa ngi koy lu tax ànd woon ci kële la mu wax. kan euh, Cheikh Omar Diagne. non Cheikh Omar Diagne ñàkkuma ànd si li wax de damaa soññe dama ni. bëgguma dégg ku far si gouvernement bi. naan danañ jàpp gaa yi. wala dinañ woo gaa yi wala dinañ leen audit wala nang sa yoon nekku si ñun ñëpp nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam. mais moom bu dee réglement de compte kon amoon na ay compte kan non dañu bu mu am règlement de compte. waaw dama ne bu nee bu mu koy am rek kon mooy ay compte na non règlement de compte xanaa mooy lan mooy comme ça tey ñun la yow lii ngay def bu si am ak problème kenn xoolal sa liggéey rek loolu soo ñeela lañ bu mu am règlement de compte maam bu mu si am ñoo règlement de compte hmm, bu mu ci am waaw bu dee dégg naa ko hmm. dégg tubaab mën nañ maa kon mën nañ maa juban règlement de compte moom daa fekk hmm. am koo am lan non non non mën naa bañ a am dañu bu mu am dafa war bu bu ne woon règlement de compte diw ak diw su boobaa am na mais dañu bu mu ci am mooy amu si te bëgg ko cee gis. d'accord mooy ko lante woon rek nga ñëw dal ci koom ñu ne règlement de compte la Assane. déedéet règlement de compte la ak bu mu am règlement de compte du benn. am naa doo nangu d'accord. <laughs> bu xasee ngànk fee du bàyyi. ma wax day dëgg. waaw dëgg la mesere. bu mu am règlement de compte ak lii règlement de compte la bokkut <laughs> bii dafa am ba pare bee amagut. Ah, bu mu am ak. ak ak règlement de compte la booba am na ba pare. <laughs> day réer ci régal ah? bàyyi ko foofu. règlement de ma ah, naa ko. déedéet règlement de compte la booba am na ba pare bu mu am règlement de compte boobu amagut. ma ngay rab de. <laughs> damay ragal nga dugg ci bin bini de li ngay kii nii jox ko baax na alaaji waaw noo déggee yum boo gisee nag APR ci RTS dalay lay fàttali rek rupture ak li yi waxantoon ña nga ca. Mm-hmm. waaye nag man lii ba léegi man damay toog di xaar parce que nee nga ma woon Ablaye Wade jéemoon na ko mais réussir ko. Mm-hmm. moo tax man ba léegi des fois foofu laay xool damay toog di xaar est ce que dana continuer du continuer. Mm-hmm. waaye daal euh, APR ak ñenn ñu dul APR ña ngay woy di dem ca RTS démb yu ma nekkoon seen gan lii la wax. waa xam nga macha allah Assane. taxawal ñu faram wax ji ci wolof. faram bu mu am fayantoo hmm. kon tooñ amoon tooñ amoon moom laa koy wax te nangu maa dégg hmm? boppam bee bu mu am fayantoo nañ def te ñu def te buñ ci dugalu fayantoo mooy kon tooñ am na tooñ amoon na ah, boo ko waxee si wolof <laughs> boo ko waxee si wolof loolu nag si français la ma ko wax man li ma laaj bu ma ko waxoon si wolof ma wax ko non bu dee si wolof déedéet Assane non non daf dof lu dong nga la jàpp bu dee si wolof waaw ah. waaw règlement de compte bu mu am moom mooy kon compte amoon na xam nga yow am wolof nga ba mu waxoon bu dee ci tubaab bu dee si wolof waaw bu dee si ah, ah, wolof demal waaw bu dee si wolof demal waaw xam nga xam nga fan la waroon wax jooju wartoon a ñëwee. Mm. le fait que mu toog RTS di ko fa waxee. lii loolu. moom yum le fait que mu toog RTS di ko fa waxee rek moo koy wane ne ko fayantoo amut parce que bu fayantoo amoon du toog RTS moom bay wax bay def émission. Ah waaw dégg naa la. donc bi mu toogee RTS rek la war a xam ni ñii nekkuñu foofu. Mm-hmm. léegi nag li tax mu wax wax ji. loolu la ñu war a wax parce que fi mu toll nii. Euh, yum dafa jiital wax maanaam day politique moom moo bëgg a dugg ci mbir yi ci politique dafa tegub jéego ñoom politicien lan la ñuy tuddee règlement de compte comprendre nga waaw parce que diaboliser na justice yi waaw même dugg na ci justice sax foofu mu dugg tamit day mel ni dafa am lu mu xamoon lu mu njort ni mën naa ne parce que ñoom ñoo ñu waxoon bërki démb ne justice yoonam nekkut ci yëf yi tey bu ñu bëggee ñëw wax ñu ne ñu juge yi ñu waxoon ne dañoo honnête tey ñu bëgg a wax ne mën nañ leen a defloo kon liñ ñu doon wax du dëgg ñoom dañ ñu waxoon ne ñu juge yu kii juge la amel affaire kërëb kërëb li muy wax ci juge yi amut nañ bàyyi zéro juge yi ñu yàq yow tàmbalee guñ nga ne yi mën nañ leen a defloo wala mën nañ leen a wala ñu defloo leen ak ñu kii leen yaa ngi dugg ci politique li muy dugg noonu yëpp wax la yoo xamante ne bi waxu politique la. Mhm. nee na def nañ lu baax ok am na lu baax loo xam ni def nañ ko mënoo yor réew 12 ans lépp bon mënul na. Mhm. def ngeen lu bon mu ne xëy na mën na am. Mhm. yaa ngi dégg loolu boo seetee ni mu yëkkatee lu baax li ak ni mu tuutalee lu bon li loolu moom justice moo ñuy wax nañu li ngeen defoon lii laak wala lële. Mm-hmm. parce que kilifaam ci boppam moo taxaw ne am na rapport yoo xam ne maa ci teg sama conc mm-hmm. waaw kilifaam ci jëm boppam moo njëkk a nangu ni ak jubadi am na fi goo xamante ni gii du bàyyi ñu koy leeral dama ci teg sama conc mm-hmm. kii ñëw ne moom amul dara lu muy teg conc waaw teguma conc lépp dañuy càmbar lépp kon la tegoon conc bu génnee ci pénc mi bu ko fi kenn politiquee nit ñi nelawuñ xam nañ li xew asam mm. am na loo xamante ni bii demoo gànnaar waaye xam nga ni kaala yaa fa ëpp mbaxana yi te it xam nga ni guddi la ñuy reer. yaakaar rek. <laughs> yaa ngi dégg donc li am solo ba am solo. mooy depuis que ñu tàmbali yëf yi ba nëgëni ñi ànd ak nguur gi sax dañ na yëf yi dafa yeex moo lay wan ne la kon dugaluñ ci lenn politique mm-hmm. bàyyi nañ justice mu def li nga xam ne moom la war a def mm-hmm. ngalawaay ñoom politiciens yii mm-hmm. nañu xam ni képp ku ñu dénk ay mbir milliardu réew danañ la càmbar danañ xool leen fu mu dugg mhm. lu ñu am explication dana set wecc mhm. lépp loo xamante am nañ ci explication bu leer mhm. dana set wecc yaa ngi de gis nga rek démboo fii lañ fi teg koo xamante ni ki ànd na ak gars yi bërki démboo njaay biñ ko wàccee am na ñoo xamante ni bi ñu ngi doon eh, dingat waa tëliba waaw tey jii am na ci koo xam ne ci ci autoroute péage bi la jaar. ah ci tali bu neex waa jaar na ci tali bu neex. wàccut ah parce que xam na ni du dëgg du dëgg waaye bañ joxee keneen ka waa ji ma ngay wut rang-rang ak. rang-rang di wut ay kii waaye bu koy wut sax da ngay sentir ni li muy wax dafa soof. d'accord mais waa ji sa waay wàccut tali bi. non sa waaye moom jaar na ci tali bi am na ko jaar ci tali bi moom daw xel yu baax wax dëgg fa yàlla. maa ne moom jékki-jékki ni tali bi ma nekk neex na. non non tey jaar. d'accord dafa jaar ci taliba parce que. Euh. dafa am yu bari yoo xamante ni bi tamit nit ñi commencé nañu xam lan moo waral yëf yi. Hmm. loolu nag mooy li booy doon wax naan jub jubal jubbanti dal na ci kaw kii. Hmm. loolu mooy li nga xam indiwaatoo ko si li si yooyu wala ñëwut tey. Hmm. noo ñëwut tey. ah ñëwut. non ñëwul de. xam nga parce que bi gars yi boo déggee rek di nga xam ni wax dëgg fa yàlla. ah gaa yi ne gaa yi nekkuñ ci caaxaan. li wax moom jar na wàcce. naan naan jar waaw. Hmm? man li ñu wax ni moom la def ah li ñu wax ni moom la def. waaw hmm. ah, d'accord jar na wàcce. Hmm. donc kon ñi loolu moom mbir la moo xamante ne bi pour tout ñëpp encore dinañ jàng ci yëf yi. d'accord waaw macha allah.